Aji Ahmed Aidara bismillah attew Khalifa Sall bi day eh. ma ne la gaañaa nga ca dee tribune yéen kaay ne ndaw atte boo xam ne ne daanara yàgg lool gudd lool ma ne la marathon la maa la ko wax waaye nag démb diggante avocat nguur gi day ak avocat wu Khalifa waaw ma ne la mbir mi kay defante biir sax guerre biir mar d'Italie mar d'Italie même bu dee sax day waaw daal dina leen a defal daal di kon dalal saal ba waaye dara ma ne leen dalal ba ca boppam kon dafa yàggul laa la wax ah, waaw yéene kaa gi ne ba ca raw jant bi fay jusqu'à l'extinction du soleil comme ni ko waajo doon waxee waaw ay avocat wu Khalifa Sall day ñoom dañoo jàpp ne ay avocat wu nguur gi ca boppam kon dañoo warul maanaam teew kon ca ate boobee ak agence judiciaire de l'État waaw waaye ay avocat nguur gi day ah. nee nañ du ca dal parce que wuñ koo dégg loola mbir mi mënul jaar yoon te nguur gi ay avocat am duñ fa nekk laa la wax maître Ousseynou Fall day bu dee escroc ah jàpp leen ne nga xam ni kon ñoom ñoo ko fi jiitu yëpp ay escroc lañ mardi daal ba ca bilees jaaj nag laa la wax maître Ousseynou Fall na maa wax la ko tijjee yéene kaay day lam wax waaw mooy démb day defante ba saf na lool diggante avocat góor gi ak avocat Khalifa Ababacar Sall maître Borso Pouy ne avocat wu Khalifa la ne ngóor gi ci boppam amuñu place ci coowal Khalifa lii ñoom daal fi mu nekk nii bëgguñu dara lu dul bopp Khalifa Sall lañ bëgg a cor de maa la ko wax maître Borso Pouy yamu ca ndaxte soxna si nee na gi laa ne amul si waaye maire bu Ndakaaru nag waaw non ñoom moom dañoo am intérêt yëngu lan moo tax nguur gi daal bëgg a ci bopp nit ñi lii ñu jaaxal maître Borso Pouy yamu ca parce que procureur de day nee ma Serigne Bassirou Gueye waaw d'accordul benn yoon ah, nguur gi ci boppam kon daf cee jëlee loraange maître Borso Pouy ne ko yéen boppu Khalifa Sall bi rek la gisoo man sama bopp man Serigne Bass Gueye ni mel karaw amu fi man Serigne Bassirou damaa ragal booboo xam ne daa sax karaw man damay watu rek damay koy wat ba mu set wet la <laughs> ilaha illallah maître Ndeye Fatou ci yéene kaay gi waaw nee na day débat bi nga moom la ñuy xaar procureur ab débat bu technique la ñin dañoo bàyyiwul suñu cabinet ay weeri weer ngir ñëw nag di fi déglu ay somba ko dañ jaay ginaar ak i lal bu gudd beeg lal bu gàtt bi yooyu indi wuñu fi am naa lu ma miti lool wal fajri ne atew Xalifa Sall bi day waaw ma ne lii daal théâtre la rek moo fa am de ca ate ba waaw ate boobu box populi nee na ate ba kay moo mujj contre xiis ci ay mbirum procédure war naa nekk ak warta non am na ci benn jamono boo xam ne sax vraiment débat bi day waatoon na de waxi ñaaw sax enquête yéene kaay ne ma ne tribunal ba day tey lay tëj na coow loolee mën nekk ak mënul ne ci partie civile yi tey la koy tëj réew mi quotidien ne maire Grand ba day dañ koo mujjee sax na génne ca Sall ba eh way Samba ay avocat wu Khalifa Sall xamal nañ ay avocat wu nguur neel place su bi bisa ngi ñëw bis bisa ngi carte électeurs yi le soleil yéene kaay ne carte d'identité carte électeurs yi day waaw am na ci juróom benn région yoo xam ni téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yoo kon jot nañ seeni carte électeurs rek carte maa la ko wax dama leen nañ fa ñetti millions ak genn wàllu tëgës lëf région de Dakar ak ak nga ñeen juróomi département yi am ci réew mi day ñaar yi waaw jël juróom ñeen jàpp juróom ñeen ak juróom 90 98 jot nañ carte électeur jum wala jum journal bi ko la Soleil journal bi di la day waaw en tout cas waxtaan ci élection processus électoral bi waaw la ko wax day Serigne Moustapha gouvernement bi motion de censure la ko wax professeur Moussa Diaw ci enquête gis nga Idrissa mi waaw tànk bàyyi waa maa ngi taxaw Sénégal la nekk de moom Idrissa waaw moom Idrissa Seck moomee Aliou Sow mi fi nekkoon ministre ci l'Observateur nee ci wàllum politique day dara daaxul pour mu ànd ak Idrissa Seck lenn bañu ko Aliou Sow ci laa Sénégal nee na jafe-jafe yi xam ne kon moo doon am sama diggante ak Idrissa Seck yëpp saafara nañu ko lijjanti nañu ko te waxtaanee nañu ko te maak Idrissa Seck nag na bu ma dañuy jokkoo di waxtaan di gisee waaye bët yëpp tey nag ma nga jëm kon ca Ziguinchor ah maa la wax parce que procureur ba day tey nag la war a wax ci ñi nga xam ne ko dañ leen a rey ca Casamance googee Casamance googee eh, Salif Sadio ci réew mi ko tijjee waaw nee na ñooñee ñu rey ngànnaay yi leen rey eh, armée bu Sénégal bee ko yor du ñoom waa MFDC libération yi ne kay ne enquête bi dee li mu waaw mooy dëggal ne Salif Sadio mii waxul dëgg maa la wax Alaaji Ousseynou Diouf day day taalil wala jàmme waaye ca lañ doon gën di dagg garab yi ak mati laa la wax te daawuñu rey wal fajri ne bor bi nga xam ne Sénégal lañ koy leb day waa FMI Fonds monétaire international waaw jaaxle nañu de Sénégal ni muy lebee nii ëpp na yéene kaa gi ne ak syndicalistes waaw ñoom maître Madické Niang PDS ak waa SAES e di jàngalekat yi université ah seen lëkkaloo googe baaxul ci Macky Sall de déedéet enquête yéene moom Macky Sall day ak ni réew mi jax-jaxee grève yeeg yooyu front social bi waaw sant na gouvernement bi ñuy jublu ci de moom kay mujj na moroomu Lac de Guiers numéro 2 i ilahilallah ah, Ababacar Mbaye Modou xarañ loo Modou Lo ci Vox Populi ne Lac de Guiers bu ñëwulee ma jëli ko ëppalaw <laughs> alaaji ma ne la tontu la président Lamine Gueye rek ba léegi rek lamb ji moom man ay dara karaaraa dama cee xamatul dara dara dara dara dara Lamine Gueye waxal boo paree ma ne la alaaji tëjal